ba tey nee na boo jullee suba ba noppi jàng qul huwallahu ahad fukki yoon ak yaar day mel ne wàcc nga alquran yeenti yoon te bis boobee ku defut la nga def mbaamu def lu ëpp la nga def yaa ko gën nee nañu sëriñ bu mag bi santaane woon na ku sëlmal julli farata rek mu jàng qul huwallahu ahad fukki yoon ak yaar xam ne ndigal la moom tëkku ko ci gannaaw suba dong